dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñëw xëyandoo njiitu réew mi di président Macky Sall soo mooy tuule nag yaakaaram dina daal di tas ci li nga xam ne mooy dialogue national bi ndax Macky Sall ñaari baan ñett ci réew mi mu tuddal ñu dialogue national te nag dialogue national bi bu ñu waxantee dëgg yéen kaay gi nee na moom réew mi ko di jee dialogue bi demul di kul mbay laara enquête yéen kaay mu ñu xamal lan ñu mbir mi kay du mbiru dialogue national bu demul céng bu dikkul mbay laara sax waaye dafa gën a garaaw ndax bras de moo am diggante Famara Ibrahima Sagna Sagna ak ki nga xam ne mooy colonel ñaa yéen a kaay wal di Walf moom jàpp ne dualité moo am laas yéen a moom dafa jàpp ne mbir mi ci boppam moo yàqu maanaam dialogue national bi moo tàgga témbe journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu en tout cas defante bu métte métte jamono ji moo am diggante Famara Ibrahima Sagna a colonel ñaa njiitu réew mi di président Macky Sall bu ca teelul wax nag mbir mi daal dina tasaaroom mel ni tulleeg male enquête yéen a kaay Walf Fadjri l'observateur daanañuy dikkal xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yokk courant gi ñoom nag jamono ji daal seen fulla ak seen fayda la ñu yore démb nag seeti woon nañ ki nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réewum Sénégal di Abdoulaye Wade waaye nag Abdoulaye Wade ku ko xam xam ne ab xeexkat la ku ko xam xam ne bëri na ay feem yoo xam ne bu si tegee ñii nga xamante ni ñooy collectif ñoo lànk maanaam danañu defante bu baax ak ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall mi yokk courant bi journal bi mu ñuy xamal lan ñu collectif ñoo lànk ñoom démb bi ñu jógee nag ci ndaje mi nga xam ne doon nañu ko amal ak Abdoulaye Wade ñoom kontaan nañu lool ci Abdoulaye Wade ci dalal gi nga xamante ni dalal na leen ko ak na xel mi nga xamante ni daal daan na leen koy jox Abdoulaye Wade dafa wax waa collectif ñoo lank ne leen seen xeex bi waru leen koo yemale ngir nag ñu wàññi courant bi rek waru leen koo yemale tamit ngir ñu libere Guy Marius Sagna kese xeex bi dafa war a romb foofu dafa war a passé foofu te da ngeen cee war a gën a xalaat Abdoulaye Wade wax leen ne leen jamono ji li ngeen gën a war a xalaat mooy ginnaaw Macky Sall kan moo fi nekk ngeen xalaat ci bu baax a baax ba bu ëllëgee si biir du ngeen jox nit réew pare wëlbatiku di ko réccu journal bii di Les Échos mu ñu xamal naan ñun ñi nga xam ne ñooy karimis yi maanaam nu ñaaw ñaaw la ñu bëggoon a doxalee ñoom sax bëgguñu woon Abdoulaye Wade recevoir ñi nga xam ne ñooy collectif ñoo lànk ñoom karimis yi ba tey ci biir journal bi du l'Observateur mu ñu xamal naan ñu en tout cas li am ba des retrouvailles am na diggante Fadel Barro bu Y'en a ki nga xam ne mooy Abdoulaye Wade ci fàttali atum 2012 ñi nga xam ne ñooy waa Y'en a marre lool lool ki nga xam ne maanaam mooy Abdoulaye bi ñu fekk fa moom nag la mu daal di xamle nee na Macky Sall ci boppam ci ay nelaw sax maanaam mënut a dil ak ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ñu ne déetewaay moom Moustapha Diakhaté ne lu jëm ci ñetteelu mandat bi loolu ci boppam samay wax du ci bari ndax Sénégal yi ñoo ko dut nangu tey ñoo ko dut nangu ëllëg yéen kaay gi de las mu ñu xam lan ñu Samba Sow mi nga xamante ni moom la ñu tuumaal ne moo rey Fatoumata Makhtar Ndiaye ak nag mbuut yi nga xamante ni sulli na ko ci tuumaal Awa Niang ak bañ tontu ci wàllu woowu waaye nag ci diiwaanu Pikine APR yëngu na ndax commentaire ñoo ngay mel ni tulleeg male journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamalaan ñu mouvement des entreprises du Sénégal ñoom nag ni ki démb daat nañuy dajee ci àllarba ji comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di def waaye nag ci atum 2020 at mu yees mi ñoom nag daat nañuy ñaanal mboolem ñi nga xamante ni ñooy membre yi maanaam jàmm ak salaam wér yaram ñaanal réew mi maanaam mu daal jëm ca kanam ñoom nag daat nañuy wax ne 2019 bi daal def nañu si nag maanaam ay jéego yu am solo lu ci mel ni forum di premier emploi conférence annuelle des femmes assises économiques corridora ak yeneen ak yeneen ñoom sax daat nañuy wax ne participer nañ ci événement économique finance ak scientifique ak social ci yëpp yoo xamante ni nag nguur gi daan na koy organiser ñoom sax daat nañuy wax ci mission économique yi nga xam ne daan nañ koy def ca bitim réew ak li nga xam ne mooy ñetteelu édition à la loolee lépp daal mouvement des entreprises du Sénégal waxtaane nañ ko ni démb ba pare wax ne atum 2020 bi ñoom nag dinañu gën a yokk daal maanaam seeni jéego kaay groupe promo consulting bii xëy nag daal ñuy yóbbu diwaanu Kër Masara ci nag musiba mabba kumba gu rëy rëy goo xam ne daan na fay xew benn waay boo xamante ni ab ambulancier la moom nag moo sant benn apprenti bu tudd Mamadou Seck na ko defaral mburu waaye nag bu mu am xoroma Mamadou Seck daal di lànk ñoom ñaar ñuy piicoo ak mbaloo apprenti bi daal di jël nag li nga xam ne mooy a paaka na ko ko dab buus mu daal di sedd guyu jamono ji nag daal nañ koy teg loxo atte nañu ko te soo moytuwule nag lu toll si ñaar fukki ati kaso dina daal di tëdd journal bi bii di laasa mu ñu xamal ñu ca diiwaanu Parcelles Assainies ni ki démb ak làkk gu métte métti moo fa am ba am ku fa ñàkk ba kanam ay atam toloon si juróom-ñaari at njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne bëgg-bëggam moo nekkoon jël mécaniciens yi ci diiwaanu Ndakaaru jël leen yóbbu leen sa jam ñaajo waaye nag journal bi nee na ñi nga xam na ñooy mécaniciens yi ñoom nag dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa journal bii di sunu làmb ñu fekk fa bàlle gayta la mu xam ne nag nee na du bëre tey du bëre suba ak ki nga xam ne mooy booy ñaa ndax booy ñaa nag bu ñu waxante dëgg nag ci làmb ji man Balla Gaye 2 samay adversaire ñëpp xam nañ leen Tapha Tine Bombardier wala sax Gris Bordeaux stade yéen a kaay mu ñu xamalaan ñu Sadio Mané mi nga xam ne askan bi doon nañu ko xaar ni ki démb ngir nag mu daal di ñëw ci Sénégal àndaale raaye gi di Ballon d'Or Sadio Mané mu jul ñëw ndax jet privé bi mu duggoon ci li ñu wax mënutoon a wàcc Tunis ndax nag amu ci woon autorisation ba tax mu daal di delluwaat fi nga xam ne mooy ca Liverpool mbir moomee nag Sadio Mané nee na du coobarey boppam yàggatul dara dina dikk ci réewum Sénégal waa Liverpool ñoom nag nee nañu mbir moomee daal dañu seet raxasu ba seet si wecc ñoom seen yoon seen yoon nekku ci ñenn ci askanu Sénégal nag la ñu xamle nee na Sadio Mané jamono ji li ko war maanaam mooy mu concentré wu ci li des ci saison bii